Euh, père làmb jaa ngi noonu waaw Balla Gaye ak hmm. Bombardier daa mel ni ñoom ñaar dañoo ñoom ñaari Balla Gaye fii indi na fi forme boo xam ne bii hmm. euh, niiru ma forme entraînement. Hmm. waaw parce que dafa yokk volume de trop. ah forme euh, ba tey mais lay Yékini du Bombardier. ah déet bokkuñu itam bul defee ne àddina ni ngay bëri kii ak ni ngay parce que kii li mu xam bokkul li Yékini xam Yékini na nga ak na ngay bëri moom bokkul ni ngay bëri kii parce que maanaam adversaire bu nekk dafa am noo koy sóoraal mu ngi mel ni équipe bu nekk ak na ngay football ak moom loolu yëf yéen football kër yi xam nga ko yéen bërikat yu bërikat yi xam nañ ne bi ni may bëri moom bokkul ak ni may bëri kii parce que kenn ku ci nekk ak la muy indi bokkul ak morom bi voilà. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw. ñoom ñëpp kenn ku taxawaay bu jub nga taxaw. ba ku taxaw bi nga jubal la. waaw waaw. Mm-hmm. waaw. waaw. xamoon naa ne yàgg yàgg day dem. waaw. ndax bu mhm. waaw lo loolu. Ah. Mhm. Mhm. parce que fii tamit ji dinaa la wax leen. parce que gis nga pois bi pois bi Balla Gaye indi nii. ak vivacité bi mu amoon. ak gaawaay bi nga xam ne moo nekkoon ci moom ci action ak ci déplacement am. poids bi da koy téye. waaw poids am na poids yoo xam ne boo ko amee ci biir bëri daf daf lay téye. maanaam sa déplacement day yéex sa action day yéex sa dóor day yéex sa maanaam sa action yi ngay day yéex mm-hmm. Mm-hmm. te luur bu yéexee rek musiba dal ko luur su yéexee rek musiba dal ko mm-hmm. waaw. ñoom ñaar euh, waaw mu ngi déglu. waaw mais buñ ko njëkkee duñ ah, du yoon buñ ko njëkkee mujjee làmb ji nit ñi ñibbi. waaw. Ah, waaw ñu ngi ah, Leewtoo mais bi kenn observation la def kenn ku ne xool sa morom <laughs> lan la indi waaw. mais gis nga arbitre ñëw na waxtaan ak ñoom Sotor day ñëw waxtaan ak ñoom ne leen bari leen parce que te ni ngeen taxaw ni daan bëri teen bu koy bu ñëwaatee nag avertissement leen di jox yooyu ay règlement ci làmb sax baax na waaw ku natt bëri wala ku nangoo yàq làmb ak yooyu. waaw waaw. Hmm. avertissement verbal na ci. Hmm. baax na ci ah. gis nga gis nga de. waaw. Ah, hmm. ngi déplacé wu. ma lay leewaatoo ñoom ñaar. Hmm. Ah. Hmm. mel ni loxo yi jëlante nañ. waaw waaw day day foog ñu gën a jigéeñante parce que jigéeñante boobu mooy jeexal bëre bi. mais père fii ñoom hmm. euh, waaw waaw bu doon man dama koy déglu. waaw Balla gis nga gis nga yurlu bi. waaw gis nga yurlu bi. bi ngi bu mu ko ne tekk yëngu rek la la boobu di déclenché daal ko yund di yund seet xam nga loolu appel appel la. waaw même boobu day da koy wan maa ngi ñëw. Mm-hmm. da koy wan léegi Balla Gaye dafa war a bàyyi xel nag ci ne kii dafay ñëw pour jeexal si bëre bi. Mm-hmm. waaw comme dafay jeexal si bëre bi nag bi mu ne yundee day taal arrêt de gauche rek wàcc. moom Balla moom Balla arrêt de gauche la waroon taal rek taal. waaw waaw de moom noonu arrêt de gauche tàllal mm-hmm. parce que ni mu méwee loxo wàcc day taal arrêt de gauche wàcc rek fléchir taxaw xaar mhm. waaw non rek loolu la bu doon man loolu rek laay def waaw voilà gis nga mhm. wala xam nga xam nga jam laaw na gauche laaw na euh, gauche bi ba gauche ba dem muy indi droite bi maanaam bagaar bagaar bagaar la indi mhm. waaw te Balla Gaye du ñaan kat ba ah bariwul lu mu koy def bokk bariwul lu may di ñaan ñaanu mais fii gis nga déplacement xam nga gëdd na ko mu arrière gis nga xoolal xam nga yéeg na ko Balla gay xeexu am na xeexu arène bu baax ah. parce que gis nga bi mu yéegee jam gauche bi nii waaw demal jam na góos fekk si na ko jam góos bi nga ñu dem gis nga bi ñu xeexee xool am na ngembali voilà loxo Bombardier loxo càmmoñ mu ngi ci ngembali ku teg loxoom nii Bombardier Bombardier moo teg loxo nii waaw mais Balla Gaye droite bi téye na ngemb fii téye téye na ngemb fii gis nga fii bi mu téye ngemb bi nag dafa doon déplacé woon nag tuur ko seen xool ko waaw mais loolu moo doon yoon dama su bi sax dafa def mais gis bi mu amee ngembali fii ci euh, ci bi droitam bi téye ngembali yi mm. xam nga kii desandi ko mm. day yokk paa bi suruxal ko mm. su yokk nag booy yokk tànk nag tànk bi nekk bi ne ci kanam doo ko laal tànk bi ci ginnaaw ngay yóbbu door indi beneen bi door ko suruxal loolu mooy xam-xam bi waaw ñu dem gis nga voilà gis nga ba ba ba bombardier xam nga ñaar tànkam yëpp tegu nañu ak ak loxo ak loxo bi yëpp dem na waaw kii Ah, mu ngi ci ngemb Balla Gaye mais Balla Gaye itam dafa téye droit tamit téye na ngemb li ah. waaw mais kii Bombardier ñaari loxo a ngi ni ci biir nii léegi nag euh, feesam bi fii fii fii ci waxuma të fees bi di mais fii fii ci maanaam ci pooj bi fii ah, ci pooj bi foofu foofu moo foofu laa yaakaar parce que foofu gisuma ko waaw gis nga jógaat na voilà mu léegi gis nga waaw mais xam nga kii ah. wallaay xam nga lii lii lii lii dëgg dëgg dëgg dañuy waxante dëgg hmm. mais gis nga man sàmbam xëy na ñuy seetaan dina am ñoo xam ne xëy na daal ma waaye mais man fii su doon man abi dama leen woo ñu bëriwaat parce que champion bu ñuy xëccoo titre laa wax titre titre mooy coupe du monde wala coupe d'Afrique wala coupe boo xam ne dañ ko mondial dañ koy xëccoo am ko ñu di ko xëccoo hmm. jël bi war naa gën a leer lii ah mais na jël d'accord gis nga loolu du ma ci werante ak yow xam nga la la ah. parce que yow sa nga wax Ousin loolu la ma doon wax léegi Ousin gis-gisam la wax dégg li wax man sama gis-gis la am gis-gis contre ma gis-gis kenn nag ku nekk la nga gis tamit nangu ko duma la ko bañal parce que loolu yëpp nit la nii ne ma nangam laa d'accord nga ne ko man d'accord ma ci loolu gisuma loolu loolu tamit yëpp nit ki la man duma ko def waaye dégg la waaye man dama ne dellu action bii nii mu daanoo nii ci ñaari mastodonte yoo xam ne dañ ne ñii ñoo man ci làmb ji te it effectivement ñaar ñii ñoo mën ci làmb ji wala boog ci mën la ñu bokk te bala nga war a xam li ma dëgg la ñu ñu ñu ñu fi loi ñu dindi waay lu waay boo fay koon dajeeg ñoom ne taxaw fii wala Balla Gaye ngi taxaw fii euh, dóor nangu loo ah, ah. a <laughs> damay teggi man. waaw ah, déet damay teggi wala wala déet wala ma yëkkati la ma yor rek ne mu ngi nii bisimilah. waa ji dama ne ñaar ñii ku leen xool xam ne nii. seen jël waru am laam-laamee. kon xanaa ñu dawal cëru papa bi rek. Seex Balla Gaye dañu victoire. Mm-hmm. du contester daan naa daanoo. Mm-hmm. waaw parce que amul habitude di daan jël bu bu leerul. Mm-hmm. dama lay wax nag li ñuy seetaan ak ñuy seetaan wax lu ma Balla Gaye kan la ma sa daan rek. ñu naa daan na koog daanu ko. Ah, wax dëgg wax ma benn ko ci làmb. waaw ba ngay commencé léegi mbaa wax de mbaa laa wax de yéen ñuy seetaan. ca mbappat ca arène ba léegi wax leen ma Balla Gaye kan la ma a daan rek ñu naan jël ba leer naag leerul man de gisaguma ko ci làmb bu amee xëy na suñu mbokk internet yi dinañu xëy den ñu tontu gis ko man de gisuma ko man mm-hmm. te nag wax dëgg yàlla mu ngi nii mm-hmm. waxuma pour tagg ko wax su ma ma suma naan boisson musuma naan boisson musuma dëgg tëram jàpp ni kooku nga faral kon Père Birahim Ndiaye am na six mille six cent mbër yoo xam ne ah. kenn bokk ci ndey moo tax ma li ma leen bëgg a wax nag ma ne la combat bii. Hmm. man ni ma ko bëggoon nii ñu waroon demee nga xam ne waroon leer hmm. jël bi waroon am benn werante lu dul xoolal wëlbit gàng waaye gël bi bi ni ngi ko delloo hmm. dell nga xool ñëpp ngeen xool ñu naan kii dóor na ñaari fas ana loxoom nga ci kaw kër kat fees bi la teg nii ñu jóg tàggali ko kee tàllal loxo daal ñibbi daal bi dool ne waroon a woo nee na kaay mu ñëw ne bëri war leen waaw billaahi wallaahi tallaahi laa wax yàlla rek a tax may man aw ma contre kenn aw ma ci lekkuma ci dërëmu kenn mm. naatuma ci dërëmu kenn yàlla rek atama mm. yéenewuma ci nit dara nit lu bon dal la nag ah, samay doom waaye sama gis-gis mooy ci làmb ji làmb ji toll woon na foo xam ne ak réyaay boo xam ne ak titre bu réy boo xam ne nii mm. dañ ko waroon bari bari bu leer mais kii dóor na ko ñu def songo kii songo fàq ko mu ñëw yaa ngi dégg li ma kii dóor ñaari yoom yëg benn loxo bi kële teg féem waaw mais benn tànk bi te benn fii moo teg mais benn tànk bi laal suuf ah, lii waaw dalee règlement bi daf ni gis nga lii ñu ne fii tegu na nga daal na lii. Hmm. ay action na muy demee mais fii taxul ñu ne mbër daanu na. Hmm. jiiri làmb ji bu ñu bëggee mu tegu ci yoon. Hmm. dañ koo defaraat. defaraat bi mooy yàgg naa ko wax ne leen wëlbir gàng mën nañ ci yokk ay ay bon point yu baax. waaye puus naa ko ñaari yoon mu génn ñetti yoon la ñetti yoon avertissement la am. ñaari avertissement ci combat choc boo xam ne ñëpp lañ koy xool pendant six mois. wala un an ñëpp ñu naan ñu ngi xaar diw ak diw ñu ngi xaar diw ak diw ñëpp réew seetaan combat bi ñëw ñu naan kii ñetti avertissement la am kii ñaari avertissement jox ko victoire loolu moom ànd naa ci yow loolu loolu loolu loolu dañu lamb da ngay xool lamb joo xamante ni combat bi day nekk ñaari quinze minutes waaw ñaari quinze minutes euh, wala mu nekk ñaari vingt minutes mhm. dix minutes sax du demagum mbër mi ah. am quatre avertissement quatre avertissement loolu mooy lamb ji et puis am sax jekku sax war a daan ñooy la pousse ko yow teel sa bopp de am na ñaar am nga ñaar am nga teel sa bopp pakala giri de ah xoolal ma loolu bëri la ci ñaari match sa doon yu tolloon loolu bëri la loolu du ndam moo tax may la am na ndam yoo xam ne bu ne ko yàlla joxee bu ñu la ko joxee ci làmb mm-hmm. boo demee sa kër bul tëgg bul bàkku bul sabaru mm-hmm. arrêté ndënd yeeg sabar yëpp xam ne tey dañ laa jox ndam waaye daanoo mm-hmm. ki war a bàkku mooy ki daan jël boobu benn werante ko war a bàkku waaye ñaari avertissement wala ñu ñëw mën ma nga war a bëreel ñëwul ah ñu forfait ko ñëwul nga daal nga nga ñu woote tànn waaw nga daal di woote tànn biir wala ñu wax ñu ne mbër ma ko euh, ñaari avertissement la am kee lañ jox waaw boo waxee ñu ne woy c'est règlement règlement ak ndam du benn règlement ak maanaam ndamu làmb hmm. parce que ndamu gérée la doon la làmb yenu du taxaw la daan jël ba mu loolu mooy làmb te loolu buñ ko génnee ci làmb rek jël yi ñu ngi yàq làmb ji li may wax nag ñi may seetaan dañ xam ñi bëgg làmb ak am jomi làmb am jomi mbër hmm. am ak surtout mbër ak jomi mbër dinañu xam li may wax dëgg la waaw euh, mbokk internet yi loolu lañ leen indi lool mu dox ci diggante Bombardier ak Balla Gaye 2 per nag euh, ale boo gis am na retour waaw combat bi dafa am retour retour bi na ban gis-gis nga ci am voilà bi ma déggaatee taxaw na hmm. nañu bañ mu demee ne nañu bañ mu mel ni bu njëkk ba rek yaakaar nga ko waaw mu déggoo ma wax ko hmm. dama ne dama nañu bañ ñoom ñaar hmm. nañu bañ mu mel ni bu njëkk ba Balla Gaye xam na ni ko liñ ko te ko ñàkkalu euh, kii itam xam na moom bombardé xam na ni mu defoon waaye xam na ne la ko la mu yaakaar ne loolu moo ko may ndam bu ñëwee ci la jaaraat kiitam la mu ñëwoon la daan dina ko moytu waaye na bañ a mel ni combat bu njëkk ba combat bu njëkk ba du combat man laa wax Birahim Ndiaye maa ne combat bu njëkk ba du combat que gisuma fa ndam lu ñuy wax dañu waroon a woo ñu bëriwaat wal bit gàng moo war a am lam jël bu leer nañ moo waroon a am seen diggante ñoom ñaar ñi parce ñoom ñaar ku ci ceene da nga ko ceene parce que Balla Gaye bi moo Bombardier bi may wax naan ko yow de soo nekkee ci gone yi bokkul ci gone yi di war ba fexe ba am sa ngërëmal waajur des na la dégg ci làmb moo maa ngi koy wax maa la wa ngi may dégg loolu ma la 89. wallaahi dëgg la ci marché Ocass foofu ci Touba. Mhm. ma ne ko bu lay bu la te keroog keroog ci bi mu jógee ci làmb Balla Gaye bi wax na ma ko wax na toog daje nañ tamit mu ànd muy muy muy muy ñu palme bis ànd ak sama soxna ak sama doom mhm. ñuy def weekend Sonatel mhm. palme bis ceeb mbawul muy génn si ne ànd ak Bombardier de mu ñëw ñu nuyoo doon ma ne ko ma ne ko ah sa combat ak mu toll mu ne ñu ngi koy dox mais taxawagul ma ne ko ah su taxawee boole ci yàlla may ndam de yàlla may tur bu rëy waaye yow ki nga war a gën a bàyyi xel sa carrière mooy bal mooy ah Bombardier gii. Euh, Yékini mhm. mu ngi may dégg dina ma dégg. mais père combat bi. Mhm. retour bi. ñoom ñaar ku ci nekk am na li la arrangé. Mhm. ku ci nekk am na lu ci arrangé. li duuf ci nag bi xajandoo na ci tin kon père dañ koy tënk waaw tënk rek dañ koy tënk xam naa ne bu beneen te ñaan yàlla fekkee ñu koy fekkee te la ñu waxtaan ci gën a toog waxtaan ah, ci combat ah. bi xam naa ne combat mu ngi ci euh, mu ngi ci kanam ma lay jaajëfalaat bu baax a baax a baax sama papa ji waaw jërëjëf parce que xam nga père Birahim su bi koo ci làmb di wax di hmm. ne ba ma bàyyi ba suba ci waxtu wi tamit hmm. damay wax rek hmm. danaa wax sama xalaat parce que làmb dafa nekk sama xol nekk ci sama dënn nekk sama yaram bien as bi yóbbu na ma léegi mag laa mm. yu bari mënatuma ko mm. waaye ba léegi làmb euh, daf may yëngal mm-hmm. parce que lu bari lu ma ci daan gis ak la taxoon ñu bëgg ko gisatuma ko ak na mu daan doxe ak na mu daan doxe fierté ba ci amoon mu ngi ci raar mm. gisatuma ko te mbër yu bari am na ci ay benn benn yoo xam amatuñu loolu mm-hmm. waaw amatuñu làmb mbër poom gor la damay wax ne làmb poom gor la as gor mm-hmm. ko man boo daan gis nga boo daanu rus bi nga daanee rus mbëru mbër poomu la waaye dama ne waaye dama ne wax mbëru làmb hmm. poomu góor la waaye ku daan rus hmm. est-ce que naa ko dama ne la hmm. waaye ku daanu rus ku daanu kon nag moo tax ku koy jox de ko jox akam waaye ay jël de sukk naak raam naak def na benn tànk ak def na trois appels ak def na tere ñëw xëy sol sa surement bu rafet wër ubbi dër ñu yàlla sa combat bi ne maa gañe noo gañe mat na seetlu ma koy jaajëfalaat noo gañe jar naa xool jëli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 ku na rëy ma juum waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor si jeeg